Amina Amina démb daanooti nga de. lu ma daane la jënd bu rëy nga daanu Amina yow itam. Eh, ah yow mbaxalu Saalum maîtriser goo ko ba léegi. waaw jàpp tege tege ci def ko ci defa defa def sama biir bi biir bi daw la damay fanaanee dem te douze ba fana guddi gi yëpp nelaw ma. noflaay la du tege tege. waaye gi kon nag xëy waaj ñi bokk ah yow yow ci magum jëm di fanaanee jaaban douze ba néeg ba douze ba néeg ba. ah waaye déedéet nag waay. noflaay jëla wala kaani gi yow tam fa. kaani gee. Patukani, kan topp kaani kan mel ni kuñ ko digal. ah wax nga dëgg de. te kaani gi maa ngi ko di ko rimb rek. di ko am nga mbaxalu Saalum moom kaanee koy lekk. kon. yow ya orang a patu kaani baa ngi nii doo ci yemale sa bopp. neex na rek nga ne na gën a neex. damaa ah loo <laughs> ah. yëgaloo ya, kon mbaxalu Saalum démb bi. kan mbaay. waaw kon yow waxuma la mbaay li dal démb. déedéet waxuma dara. yaa mi naa lii wax naa la ko waaye déedéet lii Amina Mbaay daal démb moo génn di doxaani ndekete jabar ja topp na ko mbaay tànk bu mu teg jabar ja teg eh, tànk ca wet ga ñoom ñaar tànk ak tànk tànk ak tànk mbagg ak mbag bopp koñoo bopp koñ ba jabar ja daal moo fekk mbaay fa mu toog ak ndaw sa nga yaakaar ni da koy dóora mbaa saaga ko mbaa mu rey lu mu ko def xam nga lu mu ko def moo la ko waxee doo ma gëm doo ma koo gaañ gaañ da koo biisu ne ko nijaay maa ngi dem kër ga te te te ñëw biisu biisu de la ko def biis mu hmm, ah. ka manqué. mbaay ma fa ba léegi mënta ñëw. fu mu jëm gàccaa ko jàpp sànq la may wonaa ma ndax du ma ñëw fii sa kër ma ne ko lan sama kër taaxat. benn néegam waaw këram lay daw. këram fii la may fekk. jabarama nga këram muy daw. du fi ñëw <laughs> du fi ñëw. mbaay dafa caga màggetum caga ngoog màggetum caga. sa xarit la de. mbaay de yaak moom a nekk fu mu pikiiroo nga naan fay doom moo par accident lay ànd ak moom nit du sama xarit keus de mbaay du sama xarit keus de la sama yëf yaak ndijaay fanaan yow fa nga yendu yow mbaay di caga mbaay moom su ma waxee mu naan ma faal yonent bi moo ne woon na takk ñeenti jabar ah moom affaire ñeenti jabar la bëgg ci xol bi moom mbaay mooy wax loolu moom loolu la loolu la may wax man ma ne ko boo amul ñeent tam boo amee ñaar baax na dégguma la nga ne nga ko wax dama ko ne boo amul ñeent tamit ñaar sax baax na. dégguma la dégguma. ñaar moom ñeent rek la. moom mu am ñaar wala yow nga am ñaar. ku ci yàlla may ñaar rek moom daal ku ko ci am rek baax na ah bàyyi allo. wa dalal lan la. Allahu Akbar. Allahu la Akbar. illaa ay nafi dem na di. ay nafi nax nañu di. Amina nafi ma. illaa ay nafi dem na ma. ban nafi la. ay nafi bi ñuy àndal nafi Camara bi ñuy àndal. nafi Cam ne e, e, Amina e, Amina nafi deewul de. nax nañu waay. Amina nafi deewul de. Iya. nafi. hee nah hee. xale bu mën a yiisu ngom dem na. xale bu mën yàlla yàlla nag des fois da ngay tooñ kenn du ko ñeme wut a wax waaye des fois nga tooñ des fois nga tas yaakaar tas yaakaar koo xam ne kon bu na fi dee bàyyi ma fi lu ma fiy def ay na fi mënoon na maa woon a ànd moon ma yóbba ah. bu neex. xale bi set gi mu set xees gi mu xees xale bi nooy gi mu nooy oh xale bu souriante charmante xale bu doxaabul oh xale bu rafet démarche dem na hay hay hay hay hay hay bi bu baax dem na borom tee bu rafet dem na kooku bu solee baax du ci am bàkkaar ndax du am benn mbaq mbaq ndax ba bàkkaar yi mi ngi commencé ci mbaq mbaq ايوا في دمنا لو هيك بدون واخنا Nabi دمنا نبي دمنا اه بدون واوني عندوش نبي دمنا lii ma koy waxee xale bu sama xel nekkoon ci moom dem naa. waa fi sama Nabi fi alors ay ay ay ay ay ay du si nga nafi ban nafi nga may wax waaye da nga ëppal waa yow tam Aïcha nafi ka waa baax na waa baax na alhamdulilah baax na alhamdulilahi rabbil mënta dee waxoon naa la ko del teey adada li jaay yow yaa wax lii yëpp ci seedeel naa ko fi lu baax waaye. yow na fi ndekete li muy dugg ci kër gee génn yëpp sa bët baa ngi ci nafi sa xel a ngi ci nafi. kii lu muy wax de man yow nafi bu deewee lii nga ko mën a waxal lii nga ko mën a seedeel baaw na fi ngay seede yow. man maa yow lan la nafi am lu ma amul. lan nga gis ci nafi te gisoo ko ci man lenn nag laa lay xamal. li des ci sa giiru dund moom na la leer ni Nafi dootoo ko teg bët ci àdduna. te bu ma la ko waxee war nga maa gëm. xam nga ni doo te man du jabaru mbaay loolu leer na la. waaw bu la leeree ni doo mbaay rek kon baax na man ak yow nag suñu wax du fii may ma ma dem préparé dem dëj bee ba ñëw dinga xam ne lépp dëgg la baa doole bi nga doon. Amina boo ñëwee loo indaale Amina wax mu loo indaale booy ñëw Amina. Ah. mëntee daanu naa di ma xalaat na fi moo neex na la nit mënta muñ ah na fi la nit mënta muñ. di ko yor moom di ko indi seen kanamu jëkkër yi ba pare bu manifesté woo ngeen ngeen ngeen ngeen réagir